Euh, dinañu examiner euh, les articles L29 L30 L31 qui révision qui va permettre à Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade de devenir candidat alors ñu ne loolu yëpp dialogue bi moo ko sooke Euh, du côté de l'autre opposition on dit que c'est fait pour écarter Ousmane Sonko alors est-ce que ceux qui sont allés dialoguer est-ce qu'ils ont eu raison euh, au dialogue ceux qui ont refusé le dialogue est-ce qu'ils ont eu tort ou pas Euh, man ba ñu waxee dialogue bi dama ne euh, démocratie Sénégal démocratie de consensus la et defe naa démocratie de conciliabule la démocratie de waxtaan la et je pense que Souleymane Jules Diop moo doon nettali ci livre bi livre boobu mu bindoon ci Abdoulaye Wade ne ay jamono Abdoulaye Wade bi mu nekkee opposition bi ba mu tàngee moo ko Abdou Diouf ba ñuy jàppante nit ñëpp di leen atte bëccëg yenn saa bu guddee dañ doon kaala Ablaye Wade kaala ko naar mu solu comme naar waaw mu solu comme naar ñu dugal ko ci R4 yóbbu ko ci ba ci Abdou Diouf ñoom ñaar ñu toog waxtaan donc loolu moo indi code électoral bi ñu am consensuel de 1993 loolu moo indi alternance en deux mille donc à chaque fois que les Euh, que les acteurs politiques sénégalais à chaque fois ñu amoon ay jafe-jafe toog nañ waxtaan waxtaan nañ seen biir trouver nañ ay solution solution yi mën na baax mën na mën na mën na mën na doon solution yoo xam ne du yàgg mais trouvé nañ ay solution yu leen di permettre ñu avancer maintenant bii yoon président dafa woo ñëpp ne kaay leen ñu dialoguer kaay leen ñu waxtaan man bi ay nit ne demuñu ci jaloog bi dama ne mën nañ bañ a dem ci dialogue bi mais résultat yi jóge ci dialogue ça va les concerner leen di bénéficier parce que loolu laa tàmmoon gis Sénégal parce que parfois di nga doon naa gis ñu war a dem dialogue une partie de l'opposition ne demuñu mais lañ fay waxtaanee dañ fay waxtaanee loo xam ne c'est dans le sens de l'intérêt général donc ré résolution ak décision yi ñuy jël day impacter tout le monde mais su ko voit bi yoon mooy gars yi dem dañ ne ok comme ñii ñëwuñu. ñoom la ñu gérer waaw ñi dem ñoo gérer seen bopp maintenant. est-ce euh, que ce que ci principe bi dialogue noonu la. non non ci principe bi pour man la loi doit être impersonnelle encore une fois je man li ma gënal mooy ñuy gérer dëkk bi surtout ñuy gérer sunu dëkk bi selon les principes et en principe la loi doit être impersonnelle donc dañu waroon def loi boo xam ne peut-être du loi buy régler un cas ou deux cas. mais loi buy boo xam ne day régler benn problème au Sénégal buy permettre nit ñi ñu avancer parce que man gisuma pourquoi ñu ne euh, képp ku ñu condamné rek euh, waroo tu perds tes droits warootoo nekk candidat à une élection présidentielle quoi pour man le plus important c'est que les Sénégalais décident de pour qui ils vont voter donc euh, damay wax parfois ne vote compétence la normalement nit war na xam war na xàmmee war na ràññee balaa muy voter parce que vote compétence la mais vote aussi droit la droit wu Sénégalais yi la donc seen droit boobu dañ leen di bàyyi ñu exercer ko donc di ci mettre des limites. déchéance électorale bi elle est nit ñu bëri dépassé nañ ko dépassé nañ ko c'est-à-dire sénégalais yi bu ñu xamee ne diw mii jaar na fii def na lii. damaa foog ne bu présenté woo seen kanam ne leen voteel leen ma pour ma gérer li ñu moom ñun ñëpp duñ ko nangu <laughs> je présume donc man je vois pas je pour man loolu sunu démocratie war na ko weesu maintenant euh, buñ nee kaay jalogee tamit. yow nga ne doo dem parce que da nga jàpp ne dialogue bi dara du fa am buñ ko analyser ci wàllu politique kese mën nañu wax foofu l'absent à tort.